kal nañ dem ci yaay mbay docteur sareeta be bay fay tànk ay fa mbay min fii bi max naa woo mooy docteur bi waawalaay bay fay tànk ay bari fay tànk aayu fa mbay min tii bi max naa woo mooy docteur bi xawalaay fay fay tànk aayu fa mbay min tii bi max naa woo kuy kontel daayira yi da nga jàngul xiilaasu ba ci buntum Musaynatu may min fii mag naa woo. muy docteur bi. waawalaay bay fay tànk aayam fa. may min fii mag naa woo. yow jàngal mu ngay natu. xam coosaanal daayira xalifa roy sunna si yoon nekk. mbay min fii bi max naa woo. andem ci yaay fay. mooy docteur bi waawalaay day fay jànk ayub. mbay min fii bi max naa woo. boo ko jàngee mbooloo yar daan dikkal sunu yan nen ba bu ñu demee ci waawoon gis ko Saalum Mbay. mbay min fii bi max naa woo. lan dem si yaay bay. mooy docteur bi. waaw walaay bay fay tànk ay fa. mbay min fii bi max naa. ay fa bay woy naa la kañ naa la jox fil naa la jox naa la sama xol mbay kenn du yow fii man. mbay min fii bi max naa woo. الملك مكة جفسينا باي من تيب مخناو موي دفتر وعلي كيفي تمت عينك باي من تيب مخناو واتيك الخليفة لم كنغر مولم غخي لريان غيوان غيرو ليلا يلا مي mbay min fii bi ma xanaa woo. mooy bi. waaw waaw fay sant ayu fa. mbay hmm. bi waa Sénégal xalifa ji bu jant. loo bañ bañ mu la leeral la lii la yàlla may. mbay min fii bi ma xanaa woo. mooy bi. وعليك كي شمس آيوك من دين مخلا وتلك الخلفة تنقلكم ay soppeem am nañ cay naawal foo ci mbay sangu mbay min fii bi max naawu am dem ci yaare mbay mooy docteur bi waaw alaay bari fay tànk aayum ko mbay min waa Sénégal ci jaan yi wagu lañu luy seen wërsëg nañu ko xaar ca laay ba laay xalifa mbay mbay min siidi max naawu mooy dëkka hmm. bi waawalaay xalifa itam mbay min siidi max naawu waa Sénégal ci jaan yi naa lañu xalifa itam ceen gi feesal ngaay xalifa Babacar mbay min siidi max naa woo muy docteur bi waawalaay bay fay tànk aayam fa waa Sénégal moo naa luy sartam warmal ceen bi xam ni ceenu ko duy ceenay xalifa may maxnaaw mooy dokta bi waawalaay mm. kay fay tànk ayom fa waa Sénégal kuy bañ ñi doo jiital xalifa mbay si kon bu saare jiitoo fa daanu xaj na ca may min fii bi mas nangu muy def tabi waaw alay kay fay tan aayum fa mm. may min fii bi mas nangu yéen ci yan bëgg leen may gëm leen may jox si leen may jox leen may seen xol yi kenn du xalifa may may min fii bi mas nangu mooy docteur bi waaw waaw laay bari fay sant ayum ko. alifa may ñanaala may ngama yaa yóbb jàmm yi réew mi jàmm yi nguur geeg jàmm yi diine ji bay min fii bi max naa woo. mooy docteur bi waaw waaw laay bari fay sant ayum ñépp woy na may ci meloom dellu sant may ci jikkoom kenn desul du rakk du doom wóor na waati waawanoo aalim yaa ngi ñëppala jiin dën ngi diine seeni galen benn desul ku nuy tëgg naan yaay ngarum ci waawanoo moo tax ñu ni Cerno ibnu Arabi moo Sëriñ Babacar ñoo nekkandoo woon ca Ndar maase woon Ibnu Arabi li nee na dama tëdd ak Sëriñ Babacar guddi ne mu jekki-jekki fi dal ci suuf ne ma di ko bés ba mu jóg ne mu ni ma Ibnu Arabi li ne ma ni ko waaw ne mu ni ma ndeysaan yàlla wan na ma suwaru asmaa oom yëpp melooy turi yàlla yëpp yàlla wan na ma ko moo ma tax a ba tànnloo na ma ba moo tax tànn naa baasitu nee ndeysaan looloo taxoon mu ni xamoon naa ni mayam dina yaatu moo tax ibnu arabi li ndeysaan daal di taxaw gisal daal di woy ni tiim nga ñëpp sama fawqa hatmil majdi tiflan wa yaafian ila an bada shamsan fatahabil garbu ñu ni Cerno Ibnu Arabi mu ni kii mooy xalifatu Shamsi diini nuuru samaa'i wa badru dayaadi wa samsaamatul ado moo tax ndeysaan ñu ni Ibnu Arabi mu ni Sëriñ Babacar si géej gi ku ci am sa keppaar gi ku ci ne loo wax nit ñi ko ne sa tap yi amul fu mu fa baxruka mawruudun wa dilluka waariqun wa qawluka masmuuxun wa juuduka sëyboo ñu ni cheikh mouhamadul fóode mu nga dëkk ca fuuta jalon ca gine mu ni gur ji warisa bi irfaanin wa ilmin maqaamawo fa jaadaytoo xadwan niaali bila nukkee ne yaa doon sa baay ñu ni ndeysaan cheikh mouhamadul moxtar daymaani ca muritani mu ni warisa abaaka fii ilmin wa taqwan walufatayni anta wa kullu aqwa mi ni cheikh mouhamadul moxtar deymaani loo xam ci sëriñ babacar mu ni góor gii jàpp na bakkan rey ko góor gii moo duufal ruuxam góor gii moo mel ni yàlla bëgg fa maa taqwa alayka nafsu yaqbaalaka taqwa fa kayfa alayka taqwa wala yaqwa alayka hawan walakinna ma yaqwa alayka hudan wa taqwa ñu ni cheikh morsa suñ jaxate moom mooy doomu xaalima jaxate kala daa ñëw seeg sëriñ Babacar Ndar ni doomi Maodo ji may dégg fii ginnaaw Maodo dem na naa ko seeti fekk sëriñ Babacar yor di ko wëndeel ci Ndar naan wa inna qad kuntu min ahli ndari ومسكني بحال داري أندري تكتري أندري لبوك جيني كتب تيتي moom la fay way naan wi àndari moo tax sëñ Babacar naan yéen ndaw ñi na ngeen sëyee xam-xam yëpp seen ndono la mu jël nag ndeysaan baati arab boole ko baati tubaab di ko wa haysuma laqaytu minhum waxida yaqoolu me ede yakoonu shahida ñu ni sëriñ Babacar mu ni ajj la daw la daawi daahihim mahruufu min baynihim noonoo waway min baynihim mahruufu ñu ni sëriñ Babacar mu ni gaañe koo ca dajeel ci waxam mu nga naan il faut il faut mu allifun bila ajal si sii waway la da taxqiqi qawlin wa amal ñu ni sëriñ Babacar mu ni waa wa zaaka tëbun musbitun moo tax ndeysaan maa paske wadaaka dëbun musbitun maa paske ne ndeysaan wa xadit wa shaddidil xadita lafdu est ce ne yooyu baat moo ko waneeg woy ko ngir wan ni ndaw ñi lu ngeen jàng la Maodo waxoon ba ko yi ne dañoo bëgg a jàngale tubaab mu ni waaw kay mën naa nekk sax baaba kër bii bu ngeen ma koy laajoon ma joxu leen ko ndax jiitu naa leen ci moom moo tax ndeysaan góor gi maas Umar Saasum ba mu dajeeg moom fekk ko ca Ndar ni man kat ma doon wax naan tubaab laan mu doon man day jommal na ma laka ya laka yaa Aba Bakrin fadailu yaqsuru an wasfiha dihni alladi yatafakkaru